بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نيوغي سنتي الله ديجري دي سلم الجميران محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيان برم يمدف القجام خيول مش مهم أكيب كتبو يونم دكتور بسبنج غنى لولو نيجي ديال سيتي سنو تيري التوحيد الميسر يقولون ديس كونديشن لا إله إلا الله الكونديشن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاي دي نيجيس موي الشرك تعريفه واقسامه دي ني تودي بوكالي موي لان ديفينيسيون بي خاجي بوكالي يال تعريف الشرك من سودي خامل بوكالي لغه في لاك عرب هو بما الاشراك والمقارنه الاشراك موي nga بولي موي nga associer المقارنه موي ngay تول لولي دارا اك دارا دي كومبارير دارا اك di gam gam le dara ak dara ci làkku arab shirk moy tolloole wala moy gam gam le moy comparer moy mingale wala moy shirk budé ci sharia dañuy wax na taswiyatu gayrillahi billahi fi ma yaqdiru alayhi illa allah ولا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله موي تسوية غير الله موي نغو تولولك كودول يالا بالله اك يالا da ngay jël koo xam ne du yàlla nga tollale ko ak yàlla ki ngay tollale ak yàlla mën naa nekk yonant nga tollale ko yàlla te xam nga ne yonant tollawut ak yàlla mën nga jël malaaka di ko tollale ak yàlla te xam nga ni malaaka tollawut ak yàlla mën jël jinne di ko tollale ak yàlla te jinne tollawut ak yàlla man nga jël borom xam-xam di ko yàlla te borom xam-xam tollawut yàlla mën nga jël xërëm wala nga jël nag wala nga jël géej wala garab di ko tollale ak yàlla te loolu tollawut ak yàlla léegi di tolloog yàlla te yàlla amul kuñ koy tolloo ngay tolloog yàlla tollale yàlla ak yeneen dudul yàlla ci loo xam ne yàlla moo ko jagoo moo ko mën moo ko xam moo ko mën a def domaine am la moo ko yelloo moo ko mérito lañ tuddee bokkaale fii ak yaa ngi tolloole yàlla ak ya leneen ludul yàlla ci loo xam ne mbiru yàlla la bokkaale loolu mooy bokkaale kon axtaamu shirk xaaji bokkaale shirkun akbar am na bokkaale bu mag waxuwa wakkaala bu mag mooy lan ñu bëri leeru seen bopp mu ne waxuwate mooy kullu shirkin bépp bokkaale atlaqahu daf ko généraliser daf ko boyal ashariu sharia nga dégg ci texte sharia ci hadis ci aaya ci waxu borom xam-xam mu ne bokkaale généraliser ko te bokkaale boobu boo ko xoolee ci doxalin bi ci façon bi ci manière bi ci li mu enveloppé li mu ëmb bokkaale moo tax ba mu fekk dafa ëmb li xurujul insan an diinihi nit ki la muy def lay tax mu génn diineem jëf ja muy def da koy génnloo ci diine bokkatu ci loolu bokkaale bu mag la bu dee shirkul asgar bokkaale bu ndaw huwa kullu amal mooy bépp jëf qawli moo xam nit ki daa wax aw fiili wala daa am lu mu jëf shar'an euh, sabata shar'an fekk sax na nañ ci sharia loola itlaaqu ismi shirki sharia daa tuddee jëf ji wala wax ji shirk la ko tuddee bokkaale wala mu tuddee ko kéeféer al al kufr alayhi wala mu tuddee ak kéeféer waaye wa ulima mais xam nañ ne min dilalaati shar ci tegtalu sharia adamu xuruji saahibihi min ad diin ne doonte sharia dafa tuddee wax ji bokkaale wala mu tuddee jëf ji kéeféer su boobaa àggul ci pas-pas su boobaa loola bokkaale bu ndaw la wala kéeféer bu ndaw la mais du génn ci sharia yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ni laa tarji'u ba'di kuffaara su ma fi jógee sama ginnaaw bu leen nekk ay yéeféer saba saxaaba yi ne ko naka mun a ye mu ne yadribu baadakum riqaaba baat ñenn ñi ci yéen di xeex ak ñenn ñi ñenn ñi ci yéen di rey ñenn ñi loolu li ciy déggee mooy bàkkaar bu mag la waaye tekkiwul ne kéeféer la moo tax borom duñ ko dee kufr duna kufr wala shirk duna shirk bu dee différence bi am bayna shirkil akbar bokkaale bu mag wala asgar ak bu ndaw bi mun a yaqtadifu dafay leer alfarq différence bi ñu xiraalal jadwal ci tableau bi al aati ashirkul akbar bokkaale mag yuxruj min al milla day génnee ci xeetul islam ashirkul asgar bokkaale bu ndaw bi laa yuxruj min al milla bàkkaar la waaye génnewula ci lislaam ashirkul akbar bokkaale bu mag bi yu xallis dafay saxal saaxibahu borom bàkkaar bi fi naar ci safara bu ndaw bi ashirkul asgar laa yu xallidu saaxibahu du dugal boromam fiihaa ci safara in daxalaha même su ko duggee day génn du fa sax yaxbitu jamii al amal bokkaale bu mag bi dafay dafay dafay dafay yàq day jëmu liir mboolem jëf joo mos a def di nga juddoo ba keroog ngay def bàkka ngay def bokkaala bu mag bi te jëf yàqu na loolu mooy la in ashrakta la yaxbatanna amaluka mooy bokkaala bi soo bokkaalee bokkaale bu mag yaxbatanna amaluka te jëf yàqu bu dee shirk asgar bu ndaw bi moom bokkaale bu ndaw bi nga xam ne ki nga bokkaale moom lay yàq su fekkee da ngaa da saraxe daaw saraxe ren saraxe daaw jéeg saraxe deux mille vingt deux saraxe deux vingt et un deux mille vingt nga saraxe sarax yu bëri deux mille dix neuf saraxe nga sarax yu bëri mais sarax yi nga saraxe deux mille dix huit ba deux mille vingt deux wala vingt trois yëpp a sell su borom da koy nangu mais ci biir deux mille vingt quatre bi nga ngay saraxe benn miskin romb la nga koy sarax te yow miskin bi saa bu la romboon cent franc nga koy jox mais da koy téye ci loxo ba mu ñëw nga ne ko am mais benn bis miskin bi romb la bëgg a daa di daa di kepp fi benn billet cinq mille naan ko nii naan ko saa am pour nit ñi gis miskin wala am taalibe wala yalwaankat am yàlla jox la te yow bu dee bu dee bu dee cent franc ne ko nii mais tey da ngaa bëgg a gisal nga kepp fii billet cinq mille bu bees sax naan ko di gaa yi di nga ne ko am yàlla jox la gars yi gis naa ah, saa waay day saraxe cinq mille lay saraxe billet bi di flotte ci kaw waaj ñëw nga jox ko mu dem léegi saraxe boobu nga gisal saraxe bii moo yàqu mais bu deux mille vingt deux beeg vingt trois beeg vingt et un beeg vingt beeg dix huit beeg dix neuf bi yàquwul parce que yooyu sell la mais bii nag yàlla taxut di baaxut parce que bii dañ cee dugal ngistal bii bi nga koy def nit ñee tax yàlla taxut leer na beneen bi mooy bokkaale bu ndaw wala ngistal lu gën a bëri mu mu ëmb bokkaale bu ndaw waaye du moom rek moo tax mu ne laa yaxdu jamil amal bokkaale bu ndaw du yàq jëf yëpp wa innama yaxbidu arriya day yàq ngistal al amal ak jëf alaji bi nga xam ne xaalatahu faqat bi nga xam ne moom rek la dugg moom la jaxasoo bokkaale ba ashirku akbar yudiixu dama wal maal day tax ñu xeex ak yow rey la dagan na jël sa alal dagan na loolu la yàlla di wax ne faqtulul mushrikiina na ngeen rey mushrikuuna yi mooy bokkaale kat xëytu wajatumuhum fu ngeen leen fekk mooy ñi tàbbi ci bo ñi bokkaalekat yan bokkaalekat la mooy bokkaalekat yi nga xam ne dañoo nekk ci bokkaale xaalis bokkaale bu mag jaamu xërëm rendi lu dul yàlla ah yaakaar lu dul yàlla màggal lu dul lu dul yàlla toroxlu ah, yaakaar na am na lu leen di lor lu dul yàlla am na lu leen jëriñ lu dul yàlla mu ne bu dee bu ndaw bi laa yubixu xuma du daganal ñaari mooy rey la wala jël sa alal déedéet du ko daganal mu ne anwaau shirkil akbar bokkaale mag bi dafa am ay xaaj bokkaale bu ndaw bi am ay xaaj bokkaale bu mag shirku akbar yan mooy ay xaajam mu ne ashirkul akbar arbaatu anwaa ëpp na ko sax nag mais ñeenti yi moo gën a siiw lu nit ñi def moo tax borom xam-xam yi même yeneen yi nga xam ne dañ koo àggale set yi bit borom dañ ko jël condensé ko dañ dañ ne mi ngi ci biir génn ci bu njëkk bi mooy bëriwaane kuy bokkaal yàlla bokkaale mag ci woo la ci woo koo war a woo yàlla nga puus ko yàlla woo ko leneen mooy sirku yàlla nga war a woo yàlla woo sama maam man sama maam wala nga woo sama ndijaay wala nga puus fi yàlla woo fi jinne wala nga puus fi yàlla ah woo fi malaaka wala benn xërëb wala leneen te fii yàlla nga fi war a woo lan la shirkun fi daawa la mooy bokkaale nga yàlla ci woo yi nga waroon a woo fii yàlla nga puus ko tolloole koog yàlla ne kii moog yàlla ñoo yem moo woo ko ak woo yàlla ñoo léegi kii laay woo mu ne ad dalil tegtal bi qawluhu taala waxu borom bi ca suratul ankabut yàlla mu ne wa ida rakibu fi lfulk fa ida rakibu fa ida rakibu fi daawu llaha muxlisina lahu ddin mu ne bokkaalekat yi bu ñu yéegee ci bato bi bu ñu yéegee ci gaal bi ñu nekk ci digg géej gi douche yi di sànni affaire bi gaal gaal gi di tourné te xool mooy bokkaale katu mafeet mu ne dañuy woo yàlla woo ànd ak sellal daawullah dañuy woo mooy daawa bi dañuy woo yàlla yaa allah dañuy wax yaa rahman yaa rahim yàlla dañuy woo waaye falamma najjaahum ilal bar bu leen yàlla suwee bañ teg seen tànk gaal gi teer ñu teg tànk rek ne jërëjëfe laata jërëjëfe uzza tey bu nekk toon ak laata bu nekk toon ak uzza bu nekk toon ak manaata bu nekk toon ak hubal kon dee nañ te biñ nekkee ci géej gi yàlla kese lañu woo léegi yàlla soowaleen ñuy san ñu puus yàlla ah teg fa keneen moo tax mu ne falamma najjaahum ilal idaa hum yushrikuun benn yàlla soowee ban agsi ci suuf si ci jéer ji mu ne ñuy bokkaale yàlla wallahi ak bëri mais xoolal fii lu doy waar la de dane fa idaa rakibu fil fulki daawu allaha muxlisina lahu diin bu ñu yéegee ci gaal bi ñoom dañuy woo yàlla di ko wéetal mais fii ñaata yoon ngay gis contraire bi ku yéeg ci gaal yéeg ci oto yéeg ci avion woowul sax moom far yàlla moom far oto bi ne këj see kuus mu ne yaa jaylaani yaa xaadir yaa nangam soo ko waxee ne li ngay def ñoonu mu ne da contre te fekk yow da koy xamal contre jaylaani contre xaadir euh, euh, yi contre euh, am tërëfi kenn waaye fi nga koy woo du palaasam sa oto bu paanee menuisier ngay woo kan ngay woo mécanicien soo ko wooyee menuisier baax na euh, bu oto mbëkkee nit mu accident ci télé bi mbëkk nit mu accident ci télé bi ah waa SDE ngay woo SONES Senelec ngay woo ñun ngay woo sapeur ngay woo léegi li ñu la bëgg a wax mooy yow numéro bi nga composé baaxul bi nga nekk oto oto bi def say course daa am daa am boo xam ne moom nga war a woo moo yàlla nga war a woo léegi nga woo keneen ñu ne la numéro bi baaxul nga ne yow da ngaa compte donc kii di la kii xettali da lay arrangé mel ni ku accidenté woo woo SDE ñu ne ko war a woo SDE sapeur nga war a woo mu ne da ngaa yow da ngaa waa waa SDE nga da ngaa waa SDE war a leen a la wax yow kon fi nga war a woo yàlla yàlla nga fay woo soo ko woowee keneen ku dul yàlla juum nga bu la corrigé coono ko lu day waar la gis nga bu leerul ci bopp bu leerul ci bopp wallahi nit ki day naqaree waxal xel mi day naqare day tëju ba pare c'est difficile te yenn yi nag yenn yi jëxlu rek moo koy waral wax ah, ignorance li ñu tuddee pauvreté intellectuelle mooy indi yenn yi xam nga pauvreté intellectuelle li muy indi mooy nit ki day gëm xuraafaat à l'extrémité c'est-à-dire day gëm loo xam ni lii du xel du nite du xam-xam du diine du du du muus ba pare mu téye ci rey boppam moo tax ma léegi Sénégal ñu ne la nit day feeñ ci niir te ku dee dugg ci bàmmeel naka lay génnee bàyyi fa malaaka yi ñëw di feeñ ci niir ñu jaar malaaka yi ba ñëw après nan lay delluwaatee ba léegi nit ñi di ko gëm ci débat di ci xëtt soo ko waxee ñu yoonoo da nga mais mënta nekk mënul nekk dafa mënul nekk ba pare amul njëriñ léegi cooj na ah d'accord léegi après njëriñ bi lan la lan lay yokk ci diine ji lan lay yokk ci économie réew mi lan lay yokk ci ngëm bi lan lay yokk ci imaan bi lan lay yokk ci xam-xam bi lan loolu pauvreté intellectuelle moo ko indi mooy xel mu pauvre doo ko dégg américain naan la George Washington daa feeñ fii ci néeg wala nga dem la De Gaulle moo génn niir bi gars yi daw soogu niir doo ko dégg lu tax mooy pauvreté intellectuelle mooy indi yenn yi mooy xel moo xam ni daara newu ci maanaam vide vide zéro daara newu ci du intelligence du nite du xam-xam du muus daara nekku ci lekk naan tëdd nelaw léegi xel moom pour mu gëm lu lu jóg da koy gëm parce que dafa vide dara newu ci boobu vide baaxut moo tax yenn yi boobu vide rek moo koy gëm lu fekk muy défendre loo xam ne lii lii muus sax muus du ko défendre muus muus buy dox wala golo bu défendre lii moom nit mu taxaw di ko défendre nga xam ne boobu bi moo mën a indi loolu sooy wax nit ki di ko yee di ko corriger moom mu jàpp ne yow ci beneen niveau nga nekk fekk njuumte li ngay corriger ci moom ak bëggal ko lu baax mais xamul loolu ñaaral bi kon mbir yi nga xam ne yàlla nga ci war a woo nga jël keneen tollale ko faak yàlla woo koo ko bàyyi yàlla kooku shirkun fi daawa te boo xoolee bokkaalekatu màkke yi yéeféer li ëpp ci seen shirk foofu la woon te suñ jamono ji nag ba suñ jamono ji xool ko ba suñ jamono ji wallahi ba suñ jamono ji da ngay ko tëdd hôpital ay métit kii ko yaa lu ne di nga ko dégg ba mu def yaa allah moo koy dégg kan moo koy gis woo su dee mi ngi dund dégg ko parce que seen diggante deux cent kilomètres wala trois cent kilomètres te xamul ne feebar na dem hôpital xanaa mu woo ko bu fekkee ku génn adduna la mi ngi ci biir bàmmee la xamul turam xamul turu ndeyam xamul turu baayam xamul quartier boo nekk xamul hôpital boo nekk xamul lu lay métti kooku boo koy woo dina la jëriñ waaw kan nga war a woo kooku ku lay dégg ku lay gis li nga nekk ku la ko teg ku xam sa situation kan moo ko mën a teggi borom bi subhanahu wa taala yàlla rek foofu daa am koo xam ne moom rek nga fa war a woo palaatam mel ni nga dugg hôpital di woo ni ma ko waxee woon sànq wala ngay woo tailleur woo leen ma tailleur bi woo leen ma tailleur bi te yaa ngi biir hôpital ah woo leen ma bi nga war a wax wala déet woo leen ma bi kon foofu yàlla nga fa war a woo ñaareel mooy shirku niyya mooy bokkaale ci yéene wal iraada ak ak bëgg-bëgg wal qasdi ak jubluwaay yow li ngay def nii loo ci jublu li ngay def nii loo ci bëgg li ngay def nii kan nga ci jublu mooy julli ki ngay julli koo ci jublu yàlla wala leneen koor gi koo ci jublu yalla nga ci jublu wala leneen nga ci jublu saraxa bi lan nga ci jublu yalla wala leneen aj bi lan nga ci jublu ñu naan la ajratu allah ji wala lan nga ci jublu wala yalla jang bi ngay jang alquran do ci jublu sakku bi ngay sakku xam-xam ni lan nga ci jublu sa way lan la jang bi ngay jang alquran ni loo ci jublu tuddi ngay tudd yalla ni loo ci jublu ndax ay kese nga ci jublu wala leneen motax gis nga jaamu yalla bu selle yalla rek tax nit day nekk ci tranquillité ba pare jaamu yàlla gi da koy def ak aise jaamu yàlla gi bu yàlla taxut ku la gis xam ne yàlla taxut donc boo toogee ni ma leen ko waxee woon fii gis ci koñ bi koo xam ne daaw nga fa gëjoon a gis jàkka jékki-jékki gis ko ci jàkka ji mu ñëw quelques jour après mu demaat gisaatoo ko kooku yàlla tax boo demee moment bi mu ñëw daa am concours bu mu doon préparé kon moom lu mu jublu ci jaamu yàlla gi yàlla la concours bi la bëgg mu at mi saa bu ñëwee fajar bu bilaal bi yéexee mu dem fëggu ko ne ko heure bi jot na ubbi jàkka ji moo fi njëkk naafi la di ñaan di ñaan bu soxla am fajoo fiw boo ko gisaatee fii mooy daa ma soxla ci jàkka ji kooku yàlla tax yàlla taxul am koo xam ne jaamu yàlla yëpp calcul la ñun ñun bëree tey koo xam ne doo julli su fajar doo julli suba doo julli tisbaar doo doo julli timis doo julli gee léegi ñu ne la am na benn julli boo xam ne soo ko jullee ci première vendredi mois bi te julli gi deux heures du matin nga koy julli premier rakka fatiha boo jàngee fa teg ci juróom-ñaari ina anzalnaahu tëjee ko qul yaa al kaafiruun ak benn lixlaasi falax ak naasi ko li nga xam ne moom mooy inna allaha malaikatu yusalluuna ala nabi deuxième rakka nga jàng fatiha teg ci juróom-ñetti alam nasara ñaari ina anzalnaahu ah tëjee ko li nga xam ne mooy inna allaha malaikatu yusalluuna ala nabi soo paree am na ñaan boo xam da nga koy jàng ku tijjeeku di nga tijjeeku ku tijjeeku wul di nga tijjeeku te yow xoolal julli juróomi soo yoon ne wuti ah léegi mu jaral la yow daaw jóg fajar jaralu la dara jóg suba jaralu la dem jàkka jaralu la léegi mu jaral la yow deux heures du matin nga teg ñetti portable dem ci maire bi une heure et demie nag ma yee deux quarante nag ma yee yow une heure quarante cinq nag ma yee quarante cinq wala une heure et nga ne coppite jóg jàpp ñëw lal sa sa di julli mu jaral la jàng fatiha juróom-ñeenti inna ansalnaahu ah ak la cay tege deuxième rakka noonu pare def ñaan gi après dem tëddi doo julli fajar après dem tëddi léegi yow say jaamu yàlla kan nga ci jublu yow yàlla nga jublu yàlla tax ngay def mu hmm? lu la yëkkati mooy leneen la yow su li ngay def nii jublu woo ci yàlla aduna yi kese nga jublu aduna aduna yi kese nga jublu mais du yàlla te gis koo xam ne bu xëyee nga ne ko defal say azkaaru sabaa asbanas wal mulk lillah ko def nga waxee yaa yaa nangam nangami yoon teg yaa nangam yoon tegaat ci yaa nangam yoon bés boobu bésu bayra la mu ngeen doo ko boo ñëwee di ko nuyu mu naan hmm, avancé journée bi yëpp du wax ak kenn tànk parewul te azkaaru sabaax yi yoonam nekku ci azkaaru masa yoonam nekku ci bu sel mën a def baaqiyaatu saalihaat parce que yooyu yàlla rek a tax mais bii yàlla taxul daa am lu mu ci jublu comme am na lu mu ci jublu boobu moom da koy jaral moo tax lu doy waar moo tax mu ne ak shirku shirku niya bokkaale ci yéene wal iraada ak bëgg-bëgg wal qasd ak jubluwaay ak dalil tegtal mooy qawluhu taala borom bi nee na man man kaana yuridu yuridu alxayaata dunia wa zinataha képp koo xam ne dundu aduna rek la bëgg li muy def lépp aduna tax yàlla yàlla taxul yemu fa de wa zinataha ak taaru aduna bëgg aduna ak bànneexu aduna rek loolu ko tax a jóg borom bi nee na wafi ilayhim amalahum fiha yàlla nee na dinaa ko may aduna ak lam ca soxla yépp nag fiha laa yubxasuun duñ leen ko xañ de duñ leen ko duñ leen ci duñ ci duñ ci nay dañ koy jox a jox ba doyal waaye kooku su paree ulaayka genre yooyu ak ñu mel ni moom laysa lahum fi l axira illa naar alaxira nañ xam ne ñoom safara lañ fa am moo tax salaf dañ doon wax ne boo gisee kenn benn waay yàlla mu sàggane diineem diine faale wu ko yàlla di ko jox aduna di ko jox aduna bu jara tiitale gi noonu koo xam ne yoonam ci diine respecté wul julli jàngul diineem xam-xam conférence yoonam newuti alxuraan mënu ko liir boo waxee mun ne ah man pourtant maa ngi nii diine xaw ma ci dara alxuraan sax mënu ma ko liir mais apparemment ça va ça va pas ça va pas kay ça va pas mënu xamoo nu ñuy jullee ça va pas xamoo nu ñuy jàppee ça va pas kii mënoo ko ça va pas set waxi nopp ça va pas nga naan ci lan lekk naan loolu bàyyi may ko xanaa bàyyi may ça va très bien bàyyi may duñ lekk buñ duñ añ duñu duñ naan ah xaar yi ci xaar yi ci kër gi dañuy lekk mburu dañuy defal poncé mburu defal leen carton jox leen ripaas jox leen ndox ñu naan wala de ñu dem tëdd nelaw bu ñu yeewoo lekkat ginaar yi dañ leen di jox aliment ñu lekk kon xanaa ñoom ñëpp ça va très xaj bi ci koñ bi sax xaj bi dañ koy sànni ay jël ak ay morceaux yàpp muy lekk muus mi ñi kon xanaa ñoom ça va très bu fekkee lekk naa naan rek mooy ça va kon ñoom ça va su ñu ngi lekk ngi naan manqué wuñ dara lolou moy dund bàyyi ma nan te dund nelaw dem àll moy dund bàyyi ma di yow dund bàyyi ma ngay dund nga nan safa va apparemment ça va te yow dund bàyyi ma ngay dund bàyyi ma yi fa lan yem kon safa ba pas lu tax mooy toppoo sa di mo tax yàlla neena nu wafi ilayhi ilayhim a'maluhum fiha sen jëf yëpp fi lañ leen koy jox soti leen ko nen dañ leen koy sotti nu wafi dañ leen koy sotti ci aduna hum fiha la yubxasun waaye walaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar allahu akbar nee na alaxira illa naar amuñu fa lenn illa naar dudul safara yemu fa wa habita ma sana'u fiha lépp la ñu defoon ci àdduna ñàkk nañ ko yàqu na yàlla nee na ko wa batilun ma kaanu yaamaluun mbooleem seen jëf neen na wa batilun ma kaanu yaamaluun mbooleem seen jëf neen moo tax borom doon wax ne soo gisee nit faalewul diine yoonam ci diine ji nekk yoonam newu si te aduna ma ngi dox tiital ko wallahi tiital ko kooku la yàlla da koy jay pour gën koo pour dóor yi gën a métti yàlla da koy jay pour dóor yi gën a métti mbugal mi gën a métti parce que fële amu fa dara comme amu fa dara moom ajjanaam yëpp kii la fële safara la am kon dana ci ajjanaam benn yoon mu nekk ajjanaam soo waxee parce que yàlla da koo jox ajjanaam fii parce que fee amu fa ajjanaam lekkam naa dara manqué waaye am na lu ko manqué te bu dee la koy xam ñetteel bi mooy shirku taa bi it lool suñ jamono mooy bokkaale yàlla ci topp keneen ci palaasu yàlla mooy taa mooy foo war a topp yàlla nga topp fa yàlla foo war a bàyyi digle yàlla nga bàyyi fa digle keneen ku yàlla wala sax beneen bi mooy yàlla digal la keneen tere la nga jël tere kooku bàyyi digle yàlla c'est-à-dire foofu gën a forcé ku ma shirku taa mune wa dalil tegteel bi qawluhu taala wa khabaram bi kasrat at tawba mune jifi ak chrétien yi ittakhazu jappé nañ ahbarahum li nga xamni euh mom moy sen savant ya sen borom xam-xam ya wa ruhbanahum ak sen saint ya sen saint ya sen prêtre ya sen borom xam-xam ya seen abbe ya arbaban jam'u rabb def len ay yàlla min dunillah ci palaasu yàlla والمسيح ابن مريم عيسى عيسى دوم مريم نيوم نيب ني جابي لن اي يالا سي بلاص يالا جيفي سيري بوروم خام خام دانيو فور سي نيوم باغا خامني لو نين واخ ني ديفكو دانيو تاج بلاص يالا باسكو دانيو بوروم خام خامي نيوي لي ريبريزانتان نيو ريبريزانتان يالا سي كوسو موتاخ نيوم دارا سوكو ريبريزانتي داغي ام غراتام نيسبا نيوم لول لاني واخ دارا سوكو ريبريزانتي داغي ام غراتام لغي ديريكتور wala président bu yónnee benn ministre compte wala benn ministre da ko représenté ma ci cérémonie bi waaye su demee président la waaye si demee président la su ko représenté rek président la day nekk président day am garaatam day am garaatam borom kër su génn kër gi bàyyi benn waay ne ko toogal ma kër gi seetal ma fi léegi waa mooy borom kër gi day am garaatam <laughs> amul garaatam maire su génnee bàyyi fi adjoint premier adjoint wala deuxième ne damay dem voyager pendant deux mois fii ma nekk ci àll bi léegi waa ji mooy meer wala ba léegi adjoint maire la adjoint maire la ba léegi noonu du maire waaw du maire bu fekkee jàkk dafa am dafa am imam ratib imam ratib ñëwul woo woo naay bam ne ko ma tey ak suba du ma mën a ñëw léegi moom mu ne léegi nekkatuma naayib maa imam ratib dina sotti waaw du sotti lu tax mooy remplace nit ki taxul nga am garaatam mën nga faa wut kon borom bi mu ne ñoom ittaxasu ahbaarahum dañoo jàppee seen savant ya seen boroom xam-xam ya ñen ñoo jàppee seen borom xam-xam yahudi wa ruhbaanahum ak seen saint yi seen euh, euh, prêtre ya ñoo ñen la mooy nasaraan yi arbaaban daf leen ay yàlla min dunillah ci palaasu yàlla wal masih ibn maryam yemuñu ca de ak isa doomu maryam lii kan moo ko wax man ko wax yéen yéen a ko wax kat moo wax ni nasaraan yi dañoo jàppee seen seen seen seen ñu sell ñuy dee les saints seen saints yi li ñuy tuddee les saints dañu leen a jàppee place yàlla kat moo ko wax kat moo ko wax yàllaa ko wax moo tax ngay gis ñu leen di araamal ñoom ñooy toog araamal lu leen neex gaa yi topp leen daganal lu leen neex gaa yi topp leen oh, yàlla waxantuwul yàllaa ko wax yàllaa ko wax moo tax ñoom ñooy toog di yor seen yi texte di araamal di daganal di def lu leen neex ci place yàlla jàppee tamit Isa doomu Mariam jàppee ko yàlla te yàlla nee na ma umiru man digal lu ma leen woon ñoom ñëpp de illa lu dul li yaabudu ñu jaamu ilaahan waahida benn yàlla laa ilaha illa hu amul kenn ku ñu war a jaamu dina ku ñu moom subhanahu amma yushrikuun sell nekkal na ko ci liñ koy bokkaale yàlla kenn waru koo bokkaaleeg ay borom xam-xam kenn waru koo bokkaaleeg ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla kenn waru koo bokkaaleeg Isa doomu Mariam yàlla sell ci loolu ah? subhanahu amma yushrikun mu ne wa tafsiru alladi wa tafsiruha firi bi alladi bi nga xam ne laa iskaala fihi amul benn lënt bu ci nekk mooy taatul ulama topp borom xam-xam yi wal ubbaat ak jaamukatu yàlla yi fil maasiya ci loo xam ne ñoom dañ la ciy moyloo yàlla mu ne laa duwaawu yàlla tekk da ngay ñëw di ñaan borom xam-xam yi de di leen ñaan ci loo war a ñaan yàlla waxul loolu nee na kama fasaraha nabi parce que yonente bi moo ko firil li Adi ibn Hatim Adi ibn benn chrétien la woon bu jógee Yemen ñëw tuub dugg ci lislaam aaya bi wàcc rootoo bu ñëw ci yonent bi ne ko las naa na'buduhum yonent bi ñun daawuñu jaamu gaa yi de suñu borom xam-xam yeeg suñu daawuñu leen jaamu yéen bi mu ne ko daawuñu araamal lu yàlla daganal ngeen ànd si topp leen si loolu daawuñu araamal lu yàlla daganal ngeen topp leen mu ne ko ah, yàlla araamal ngeen ànd seeg ñoom mu ne ko ah kay mu ne ko fa mooy jaamu gi kon des fois nga yi dañoo réer ah jaamu nit nit du jaamoo nit nit mu ngi jaamoo nit nit day jaamu nit kay jaamu nit tekkul da ngay ñëw di ko julli le naan ko toogal fii ma julli le wala julli gi yow yaa ko moom yaa tax may julli wala yow laay wooral danga def il suffit que waa ji nit doomu aadama nga teg ko palaasu yàlla jàppee ko yàlla mooy lan mooy yàlla nee na lii araam na moom mu ne dagan nag nga bàyyi woo yàlla topp ko kon moom waxam bu gën a force yow ko wax yàlla topp teg nga ko palaasu yàlla nga ko palaasu yàlla yow biir kër gi rek biir kër gi gi sa papa yónni la boutique ba ne la demal jëndal ma nangam nga génne ci boutique bi dajeeg benn waaye mu ne la delluwaat a biir kër gi bu sa papa man maa la tere bu ko jëndi sa papa boo ñëwee nan la yow sama wax nga war a topp wala waxu ki wala déet ah yow sama wax nga tolloo leen diw waxu diw du loolu lay wax sa papa sama wax ngay tolloo leen waxu diw léegi waxu yàlla nga koy tolloo leen waxu nit yow nit rek sa kilifa nanguwul nga tolloo leen waxam ak waxu keneen waaw waxu yàlla nag sa kilifa nanguwul nga toolal waxam ak waxu keneen fa kayfa waxu yàlla moo tax mu ni لعلي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم يعني نكو جامو لين موي تاعهم موي توب لين في المعصية لو خمنا أك موي يلا الرابع ينتهي الشرك المحبة موي بوكالي كي المحبة بك موي nga bëgg dara comme ni nga bëggee yàlla bëgg yàlla bu nga koy bëgg waroo ko tolloo dara su fekkee am na loo xam ne dafa gën a forcé yow yàlla dafa am dégg man diw laa gën a bëgg même lépp yàlla ak ñëpp buñ taxawoon diw laa gën a bëgg ko wax du garaw moo tax waddali tegteel bi xawlu taala waxu borom bi yàlla nee na wa min an naasi wa min an naasi am na ci nit ñi kon du ñëpp de du ñëpp mais am na ci nit ñi min bi tabaid la partitif la am na ci nit ñi man ñoo xam ne yattaxisu dañuy jàppee min dunillaahi lu dul yàlla an daadan def leen moroomu yàlla yemuñu fa de yuhibbunahum dañ leen di bëgg ka xubbi yàlla waxal boppam de yuhibbunahum dañ leen di bëgg ka xubbillah comme ni ñu bëggee yàlla walladina amanu bu dee ñu gëm yàlla ñoom ashaddu xubban lillah seen mbëggal yàlla dafa tar yemale wuñ ko dara yàlla moo waxal fii boppam ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jël ay mbir teg ko ci place yàlla jàppee ko yàlla bëgg ko comme ni ñu bëggee yàlla loolu man maa ko kan moo ko wax yàllaa ko wax fii ci alxuraan suutul baqara aaya cent soixante cinq wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah am na ci nit ñi ñu jël leneen lu dul yàlla teg ko palaasu yàlla yemuñu fa bëgg ko comme niñ bëggee yàlla te dara lu mu mën ci doon waroo ko bëgg comme ni nga bëggee yàlla parce que su boobaa day gën a forcé wu ko yàlla wala da nga koy tolloo ak yàlla te yàlla duñ ko tolloo ak lenn loolu mooy li nga xam ni mooy ñeenti façon shirk yi am mu shirkul mahabba shirkul taa shirkul niya wal irada wal qasd ak li nga xam ne mooy shirkul daawa mu ni am sila ay misaal ay exemple ala shirkil akbar ci bokkaale bu wal asgar ak bu ndaw bi am sila yi bokk na ci ala shirkil akbar bu njëkk bi mu ne shirkul akbar jëli dafa am bokkaale bu mag boo xam ne dafa leer nañu feeñ ku ko gis xam ko kooku bokk na ci azabku li xayrillah mooy ngay rendi loo xam ne yàlla taxut ñu laa soxna si sëy ngeen dix ans de amu leen doom dafa am ay seytaane dafa am ay rawaan dafa am ay njabar léegi nag sarax daa am sarax boo xam ne ba mu koy defal su bëggee mu am doom au lieu que mënal demal ñaan yàlla del julli di ñaan yàlla mooy soxna si doom mooy la foog nga rey ñetti ginaar yu xonq rey ñaari xar yu weex wala xaru benn melo nga teg ci rey ñeenti naat bale ko benn copine boole koog benn copine boole koog benn ginaaru àll boo amee cokkeer dolli ci baax na ak wut pitaxu kër pitax yi nga xam ne moom la ñu yor ci kër yi nga rey ci peer peer ngay rey peer ñeenti peer su ko defee muy juróom-ñetti pitax sarax boobu mooy tax soxna si am doom léegi léegi ay pitax ak i ginaar ak i nag ak i xar ak béy ñooy may doom wala yàlla boo demee pitax yooyu mu lay reyloo wala naat yi wala xaar yi am na ci yoo xam ne amaguñ doom walla ya toog nañu lu yàgg mënuñoo am doom wala seen yaay toog na lu yàgg nenu leen parce que nen bu mu nen nen bu gaa yi gaa yi omelette ko wala ñu baxal ko kon toog na lu yàgg moom mënta jub beneen an nasu li xayrillah mooy niséer ci lu dul palaasu yàlla niséeral keneen ku dul yàlla niséer mooy nga ne yàlla bu defee sama visa bi génn ma tukki bu yàlla defee ma admis sama concours bi bu yàlla defee soxna si ma labat ko ñu may ma ko ci jàmm ah dinaa woor benn fan sante ko yàlla kooku yàlla nga koy defal yàlla la ñuy loolu mais doone su defee sama visa bi génn ah dinaa jullil jiw benn fan dinaa wooral jiw benn fan dinaa saraxeel jiw nangam déedéet kooku yàlla lañ koy defal ñetteel bi ci bokkaale bu mag alistixaasa bi gayrillah mooy sàkku xettaliku ci keneen ku dul yàlla ci mbir yi nga xam ni yàlla rek moo ci mën a xettaliwaate am na mbir yoo xam ne yàlla rek ci mën a xettaliwaate loolu yëpp xam nañ léegi foofu soo bàyyee xettalikoo yàlla nga woo keneen wala jëfandikoo leneen lu dul yàlla pour mu xettali la foofa tàbbi nga ci bokkaale bu mag loolu mooy shirkun akbar jëli bokkaar mag bu leer nañ moo xam ne amul sikki sàkk amul dut ñaareel bi moy ba shirkun akbar bokala bu waye waaye bu ndaw waye dafa neub amna bokala bo xamne bu ndaw la waye ab afwan bu mag la akbar la waye xafi du ñëpp xamne li bokala bu mag la parce que dafa neub koku mune mislu lu melni shirkul munafiqin bokala ka naafiq wa riyaayim ak sen gistal nafiqi ñom dañ doon wone l'islam n'est-ce pas ci kaw waye ci suuf ci suuf ñom dañ doon bokala yàlla ci suuf gëmuñu ko wa la ak lu mel ni xaw xawfu sir ragal boo xam ne ragalu ragalu biir la ragalu biir secret ñu ma misaal waa ñaar dinaa la soppi golo nga dem seen kër tiit jaxasoo ne ko da ma mën soppi golo dëkk bi yëpp ay golo golo daa manqué ci dëkk bi sax golo sax dafa manqué ci dëkk bi soppil dëkk bi ay golo bëri dinaa la soppi nag wala dinaa la saxalal béjjën wala dinaa sax dinaa def nga sax genn wala dinaa defal ñetti bopp yàlla bind ma am benn bopp nga ne di nga defal ñetti bopp léegi loolu tere naa nelaw nga ciy ci loolu koo ci war a ragal kan nga war a ragal ci loolu loolu yàllaa ko mën di waa ji mënu ko waroo ko ci ragal waroo ko ci ragal loolu waroo ko ci ragal waaw loolu mooy xawfu sir bokk na ci mu ne wa huwa xawfu xayrillah mooy nga ragal ku dul yàlla fi ma la yaqdiru alayhi illa allah ci loo xam ne kenn attanu kenn mënu ko ko loo xam ne yàlla rek moo ko mën da nga ciy ragal nit ah doo ci ragal nit bokk na ci am sila ala shirkil asgar misaal ci bokkaale bu ndaw mooy shirkun asgar jëli am na bokkaale bu ndaw boo xam ne bu bu leer naññi la boo ko déggee rek xam ne waa ji tàpp ci bokkaale bu ndaw alxalif bi gayrillah ak a bëri ci réew mi waat ci keneen ku dul yàlla bi alayhi salaatu wa salaam moo ne man xalafa bi gayrillahi faqad ashraka aw kafar ku waate keneen ku dul yàlla nee na bokkaale nga ban bokkaale bokkaale bu mag bu leer nañ boo xam ni euh, shirkun asgar la waaye jali bokk na ci naan bu neexee yàlla ak sàmba bu neexee yàlla ak paata bu neexee yàlla ak euh, demba wala bu neexee yàlla ak jiw lu tax mooy yàlla lu ko neex day am même bu neexul jiw day am wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin la yàlla wax ak naan lawla allah wa fulaan bu nekkutoon yàlla ak jiw yàlla moom kenn du ci teg ak parce que yàlla du ko ñuy comparer kenn du ko ñuy tollale kenn déedéet jiw nekku fi woon yàlla di def li muy def jiw nekk na fi yàlla def li muy def jiw dem na yàlla ngi def li muy def wala déet ñetteel bi mooy shirkun asgar xafi mooy bokkaale bu ndaw bu nëbbu mu ne yasiru riyaa deme ni tuuti ngistal par exemple koo xam ni dafa toog fii di jàng alxuraan baat bi naqari comme sama baat ma ngay jàng naan aouzu billahi min ashaytani rajim udu ila sabili rabbika bil hikmati benn waay ñëw toog keneen ñëw toog keneen ki ñëw toog keneen ñëw commencé am mbooloo mu commencé udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana changé na temps bi léegi commencement bi selloon na waaye tuuti ngi sël dugg naa ba muy commencé jàng am na ñoo jàng mbooloo mi commencé na bëri bëgg leen a ne man ngi sël tuuti dugg na wala dugut dugg na ah tuuti ngi sël dugg na am waajoo xam ni dafa dajale ay ay cent franc cent franc ba mot mille franc dix cent franc la teg fii ne tey su ma génnee dix cent franc yi laay sarax dix personnes dix taalib premier taalibe mu romb sarax deuxième sarax troisième sarax ba mu des benn taalibe bi mooy commencement bi lépp sell na mu dem ba koy waaj a sarax ne yéen gis mbooloo muy génn mu dugal cent franc bi génnee billet dix mille comme ni ma ko waxee woon sànq naan ko ni taalibaam jënd ci añ ak reer ak ndékki nga jënd ci koy jox xam nga bi selloon n'est-ce pas wala sellutoon waaye fin bi fin bi moom li mu prévoiroon yéene ko mu sell mooy mille franc laay saraxe ci dix cent franc saraxe ne neuf yi ba bu koy waaj a gis mbooloo mu tëll di ñëw wala mbooloo mu toog mu changé décision du felloon na mais tuuti nga yaa tuuti ngis tël ñëw dugal ko génnee deux mille am wala cinq mille dix mille am ah encore jënd ci nangam rek nit ñee tax wala yàlla taxatu loolu muy am dafa bëri mooy yasiru riyaa kooku bokkaale bu ndaw la mais dafa dafa nekk xam ne bu nëbb la bokk na ci aussi mooy ak siyaratu mooy gaaflu yow boo waree xëy da ngay fekk julli nga ndékki sa ndékki jël say bagage ñëw bunt bi sooy génn jiital sa tànk ndeyjoor na bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah yonent bi ne ñaan bi nga xam ne booy génn sa kër boo ko defee yàlla aar la koo romb mu ci bës a tànk dem di ko teg ci ci ci ci ci ci ci marmet pour tàngal ko pour jàpp sa si di tànk yi muy métteeg wala muy ci bës a takkandee rek sa yoon newu di bàyyi parce que def nga sa ñaan bu ko faale ah def nga sa ñaan ba pare dara du la dal mais nga gis koo xam ni moom balaa moo xëy yéen ñaar mën ngeen jëndandoo buntu kër gi ah yow nga dem ba àgg sa service ba àgg fa ngay liggéeyee ba àgg sa bureau ba àgg sa boutique moom génnagul buntu kër gi day gaafloo day teg tànk ne nii xëcc tuuti buntu bi dugal bopp bi xool jigéen mooy ñëw mu tëjaat buntu bi dugg dix minutes lay def pour génnaat toogaat tuuti newaat nii buntu bi. newaat nii gis benn maire buy ñëw mu delluwaat buntu dix minutes dina ko def balaa moo génn buntu kër gi parce que waa ji nee na ko yow bis booy xëy boo dajeeg jigéen moo xam maire la wala jeeg wala jànq sa journée du baax xanaa xale bu ndaw léegi bu dee nii maire dugaat na bu dee nii jeeg dugaat na bu dee nii jànq dugaat na léegi kañ lay génn des fois mu ne nii dem ba teg dañuy tànk bi am ko damm koñ benn maire mu dëppaat mën naa def dix minutes quinze minutes da ko rey ci buntu kër gi dañu génn te picc mi day ñëw génn muus bi ne woon ci kër gi day ñëw génn muus bi di xool ndax euh, nitey ñëw góor wala jigéen wala mag wala màgget te muus bi bu toogee tuuti ñu sànni ko jën bu mu lekk wala morso yàpp mu mu mu lekk ba suur te dina la yow nit ki yow nga compliqué sa mbir gis nga boo wóoruwul yàlla wallahi da ngay sonn boo yaakaarul yàlla dangay ngay sonn boo delluwul ci yàlla da ngay sonn moo tax da gis nit ne da nga ko yërëm lu tax mooy problème yu bëri yi am ci doomu aadama yi jàpp leen ay problème bu bopp ak problème psychologique nangam jafe-jafe yeeg jaaxle yeeg fit ñàkk wiiru ci yàlla ñàkk a dellu ci yàlla ñàkk a yàlla ñàkk a dayloo yàlla wallahi boo xamee ne yàlla mooy sottal lépp yàlla mooy régler mbir yëpp yàlla mooy faj lépp yàlla lu am moom la ku ku am moom la ku ñàkk yàlla la lu sotti yàlla la waaw loolu di nga ko am ku mel noonu nga yaakaar leneen est que di am lu mel noonu nga yaakaar leneen wala ngay wéeru ci leneen lu dul moom déedéet soo jaaxle moom mooy kii dindi jaaxle moom yàlla moo tax yéen bi wax na ne law annakum tatawakkaluun ala allahi xaqa tawakkulihi kama yatawakkalu tayr la razaqakum nee na su ngeen doon wàkkilu ca dëgg-dëgg wàkkilu ci yàlla comme ni picc di wàkkiloo ci yàlla yàlla wërsëgal leen nee na taruuhu bitaanan wa taxdu ximaasa picc buy xëy suba teel di génn di naaw day xool rek benn direction rek dem du fi nekk naan direction bi am na luy ñëw xaaral ma dëpp de day génn garab gi rek wala miir bi wala rek naaw na dem léegi buy xëy bi biir bi day bit mais suy ñibbi si ngoon fi mu nekkaatoon biir bi day fees del mu tëdd nelaw ba suba bu xëyaat lekki waat comme fu ko neex lay jëm dafa wàccilu ci yàlla picc mi dafa wàccilu yàlla mbokk xoolal jën yi ci biir géej nekk fa yàlla di leen jox ñu lekk ñu ngi ci biir ndox wala déet rabu àll yi nekk ci biir suuf nekk ci biir pax yi pax yàlla di leen jox ñuy lekk muus yi ci biir kër yi yàlla di leen jox ñuy lekk xar yi ci koñ yàlla di leen jox ñuy lekk dina bàyyi nit yàlla dina bàyyi nit yooyu sax bu guddee yàlla may leen ñu lekk des fois da gis yoo boo xam ne naan kàcc ñëw ci néeg nga naan waa mais kii ci fan la jóge fekk wërsëgam fii la nekk il faut jël ko bu la màttul màtt keneen munoo ci dara nga dàpp ci miir bi dóor fii wéq fii def lu nekk yoo bi kii lekk ba pare dem yoonam li tax mooy yàllaa ko jox wërsëg te wërsëg bi foofu mu jël si ko moo ko jox wërsëg wërsëg foofu mu dafaa nga teg sa lekk dem fee benn weñ ñëw daanu ci wala nga ñëw fekk benn dàq mu dem weñ bi fan la jógee boo demee romb nay carte yu bëri ne bii fii la war a lekk fii fii la war a lekk des fois kaas yu bëri tege mu romb kaas yëpp mais ci la ci bii la war a lekk yow bii ci la war a lekk pourtant lekkul ci yeneen yi mais wërsëgam ci fii la nekk il faut mu jël ci bosam dem waaw ah, loolu soo ko xamee noonu da ngay tranquille boko xamé non da ngay tranquille nga xamné sunu borom subhanahu wa taala ah moy ki jara wàkkilu moy ki jara wéeru waye gaflu ak tayratu nek lo xamné ne lu baax la li jéxalé moy mu ne duwaaw ñaan bu am jëri bu am solo lil wiqaya pour protéger wu min ash-shirk ci bokale mu naan abi Moussa abi musa al ashari radiallahu anhu qaal nee khataba rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaata yowm yonent bi dafa xutba benn beus fa qala mu ne ayuha nnaas yéen nit ñi ittaqu hada shirk gis nga moy ki len bokale bi parce que day yóbbu nit ñi safara de ñii dem safara dugg fa duñ fa génnaat bokkaale moo leen fay dugal mooy ci leen bokkaale fa innahu axfa min dabibi naml bokkaale dafa dafa dafa nëbbatu moo gën a nëbbatu tànk xorondoom xorondoom tànk xorondoom menentaal bu la rombee li gis tànk bi menentaal ba rek pour nga gis ko problème la soo ko gisee da ngay gis muy dox waaye tànk bi xanaa nga téye ko di xool gis nga ñi tànk menentaal nëbbatoo bokkaale mu ne noonu la nëbbatoo fa xaalahu man sha lu ko soob wax wax ba pare bi waa ji mu ne ko fa kayfa nattaqihi waa yonent bi <clears throat> nag lañ koy moytoo wa axfa min dabibi nam te moo gën a nëbbatu tàngu xorondoom yaa rasulallah yonent yàlla bi qaal mu ne xuulu leen wax soo bëggee mucc ci bokkaale allahuma yàlla inna nauzu bika ñu ngi lay muslu ñu ngi ñaan nga musul ñu an nushrika bika shay'an na'lamuhu ñu lay bokkaale ci dara loo xam ne ñu lay bokkaale ci dara loo xam ne xam nañ ne lii bokkaale la ñu ñu koy def ونستغفرك نيو نيان نغا جيغال نيو لما لا نعلمه تي لو خامني داف نانكو تي بوكال تي خامو نيو داف نانكو تي بوكال تي خامو نيو مو نخ نيان يالا بو سالو تي بوكال حديث بو ما فصلو نكو مو نيك حديث بو خامني بو وير لا كون داني تاخو فوفو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين